ñu daal di ñuy wax naka la ñu préparer seen équipe naka la ñuy préparer seen nawetaan ak ambiance bi ndax ku ne xam ne ne nawetaan dafa ànd ak ambiance donc li ngeen di gis sama ginnaaw mooy match bi nga xam ne ni moo posé entre Castors et l'ASC Colobane dañuy xaar tuuti rek ñu daal di gisee coach yi ñu mën ñoo wax ñoom nan la ñu doxalee daal. gannaaw ni ñu leen ko waxee sànq ñoo euh, ngi taxaw ak tey ki nga xam ne nii mooy coach bu ASC Colobane euh, yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko ci valeur football ndax euh, li fi def tey jii si réew mi ñëpp xam nañ ko muy monsieur Mara Mbaye dañu def dara dul di ko laaj naka la préparer équipe am ak nan lay waajalee nawetaani daal. bon salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp Mara Mbaye coach ASC Colobane bon pour répondre a votre question mooy ni ñuy waajalee rek comme ni doon waajalee quoi.

parce que mën nañ ko jël daw ren ñu ñëw passé à côté day nduru leneen donc cette année ci année de confirmation la par rapport ak année daw bi quoi. tey tey yaakar nga ne daaw ren ji ko ba allah fa mu demoon daw dina fa dem ren. am nañ ci yaakar vu euh, recrutement bi ñu def ak jour yi fi newoon ménage bobu je crois que buñ ko défé je crois que on pourra aller très loin et puis suñu objectif premier objectif c'est la coupe départementale d'abord. ñu soog djublu ci coupe zonale bi quoi. ok merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax euh, coach ASC Colobane. bi ñu def dara dul rek dem daal di seeti coach ASC Castors moom it mu wax ñu xalaatam wax ñu li muy préparé équipe am Eh, ñoo ngi jàkkaaru ki nga xam ne nii mooy aussi euh, coach bi nga xam ne mooy bu ASC Castor eh, ñu koy wax Massamba eh, yaakaar naa ne kii tëngeej ñëpp xam nañ ko ci wàllu football ndax def na fi ay jaloor yu rey yoo xam ne ni kenn du ko werante donc Mass tey dañoo ñëw fii fekk la nga def benn match am important yow ak ASC Colobane te ku ne xam ne ASC Colobane daaw moo nekkoon finaliste moo jël coupe bi kon donc nga ñëw am tey ji opportunité pour am match amical ak ASC Colobane moo wax bëggoon a xam yow Mass naka nga waajalee sa équipe ak naka ngay waajalee say nawetaan. bon tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu yéen waa télé bi di rafetlu initiative bi ngeen am bon di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi suivre kii bi ak seen internautes yi ak yëpp bon euh, ku nekk xam na Colobane moom defe naa. équipe bu mag la quoi ci ci nawetaan bi ñu nekk parce que dernièrement rek moom moo mujjee jël coupe bi defe naa je pense bien voilà moom moo jël coupe kon ngay def match ak ñoom di di daf lay daf lay jox beneen allure quoi daf lay dugal ci compétition bi aussi donc ma gis ne élan bu baax la quoi beneen bi mooy euh, par rapport ak ASC Castor bi nga xam ne moom laa ñëw mu nekk rek yokkute ci sama métier bi ma nekk ci domaine bi ñu nekk nii quoi parce que domaine bi ñu nekk mooy nawetaan aussi Euh, gis nañ ne daaw euh, yaa ngi yoroon équipe bi nga xam ne nii mooy renaissance ren nga ñëw yor Castors et donc Castors gis nañ ci deux dernières années yi mu doon euh, équipe boo xam ne ni équipe bu kenn yaakaarul woon la ne Castors dina fële nii muy am ay défaite du a match de poule soit muy toog kar de finale yow naka da nga ñëw pour pour pour pour defaraat équipe bi maanaam. waaw comme nu ma la waxee léegi rek. genre salaam ci la koi parce que defe naa yor Castors ku nekk xam na Castors équipe bu mag la. bu fekkee da nga jóge renaissance ñëw yor Castor rek mooy que ne peut être am na benn amélioration bu am peut être sa côté liggéey donc loolu challenge la mooy que ne yow boo ñëwee am na liggéey bu bare bare bare bu la fiy xaar te ni nga ko waxee aussi mooy bi nga ñëwee eh. da nga fekkoon muy sooxe donc yow da nga war a relever fi bi vite fait eh. donc loolu bokk na ci li ñu fi indi aussi waaw. est-ce que am nga yaakaar ne ren jii nii Castors euh, dina jóge ci li mu nekkoon ren dina sori. bon effectivement effectivement am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar parce que boo gisee liggéey boobu moom lañ nekk di amal nii depuis depuis ñu liggéey boobu lañ nekk di def et puis joueurs yi aussi yi war a yóbbu équipe bi foofu ñu ngi fi dirigeants yi ñu ngi fi donc defe naa at yëpp mu ngi fi pour pour affaire bi mun a dem fi ñu ko fi ñu ko yaakaaree quoi. donc ñu bu baax di la remercier moo nekkoon Massamba doon coach su ñu ngi koy bëgg bu baax di ko jaajëfal di leen wax mbokk euh, ba ci kanam tuuti ñu dal di dem suivre match bi dal di leen indil ay séquence ki nak mom kenn du ko ndax yaakaar naa ne xam nañ ko ci walu football mu ci yëngatu bu baaxa baaxa baax don nak doon nag ko xam ku euh, bëgg limi def la ku gëm limi def la euh, mu ngi yëngatu feulé ci académie bu l'ASC Médiour ñu gën ko xamé ci Doudou Ballon tay ji euh, mom lañ fété fi mu doon préparateur physique bu ASC Colobane ndax ku ne xam ne yarna moom jaar na Colobane jaar na jaar Jubo ñëpp xam nañ ko ci wàllu football donc du Doudou dama lay laaj tey ji euh, naka nga préparé sa équipe ak naka ngay waajalee nawetaan bi ñu jëm. bon avant tout man maa lay nuyu bu baax di la ziar bu baax bon di bu baax a baax bon ñun ay effectif lañ ñun ay encadré lañ ay entraîneur lañ ay formateur lañ comme ni nga waxee rek dama nekk académie Médou yaa ko formé ay xale jóge ci daañu fay xam nga formateur formé ay joueurs yu bari comme ni ñu ngi championnat Sénégal ay Avel ay Tooleen bëri na ay xale jaar sama loxo comme ni nga waxee. ñu may ooyee Doudou Baron football laa bëgg yàlla bo ma nattu ci lolu lu weesoo mo ren cette année ci ma nek fële ci ASFA championnat euh, Losé Liberté si fofu la nek championnat te ligue ak wa ASFA di voyager après yàlla def ren cette année ci ma ñibbi saal sama dëkk bu bi ASC Colobane euh, Colobane man fi la bokk fi laa parce que dama fi noonu benn année euh ak ñom yàlla ma ñu résultat daaw mu doon euh, champion de coupe bi cette année ci ma ñibbi si Colobane ñëw pour nekk fi physique commande di leen jappalé bon Colobane nag bi ma ñëwee cette année ci

sur le plan physique on est pare compétition bi jege si ne bu baax mais instant bi xale yi pare nañ waajal nañu baax te champion mooy ñoom dañuy jouer championnat kon match wu cette année yaakaar naa Colobane dañ koy dégg fu sori équipe dina sori gëm naa résultat bi dinañ gàm parce que suba tey mobilisé nañ quartier bi dañoo pare ren dañoo décidé kon ASC Colobane ren gëm naa incha allah match ak liggéey bu solo liggéey bu am solo bi ñuy def ñoom gëm naa Youssouf Sabaly dinañ ko naa ne Colobane dina doon champion parce que joueurs yi xam ne ñoo ñëw Colobane muy ay Makode bëri na ay joueurs yu mag yu fi ñëw yam talent am qualité gëm naa ne waaw cette bëgg a euh, dem fi nga euh, euh, ko parce que xale yi mobilisé nañ suba tey kaddu ñëpp pare nañ boo xoolee tey monsieur Nante waa ñoo Castor sama ginnaaw fii suba tey tey gis nga nit ñi en masse xale yaa ngi di joué Colobane waajal na compétition pare nañ te gëm naa incha allah bu ci yàlla àndee ren dinañ champion incha allah mais est-ce que tamit euh, ak Colobane li nga xam ne nii mu ngi koy waajal muy les phases départementales euh, rax ci dool yi mu war a waajal nawetaanam est-ce que loolu noonu du xaw a sonal ces jours mbaa mu xaw a metti ci seen wàllu euh, staff loo ci xalaat daal. waaw waaw waaw boo xoolee parce que boo xoolee gisoo ma la Colobane dafa jël ay jours yu bëri ren parce que sooy dem départemental foog nga am ay jours yu bëri. foog nga am parce que ben 20 jours mënul gérer compétition bi mais il faut am ben groupe bam ni groupe groupe groupe boo ni tey day fekk 30 à 40 jours parce que compétition faut goudou te ñaari compétition ngay gérer tay euh, ba xalé yi dañ jógee championnat amuñu temps pour noppaliku te vraiment xalé bo boo leen naree teg sant day métti si ñoom kon foog deux groupes yu bax pour nga mën séparer compétition bi parce que bu ñuy jé dama daal ñuy jé euh, xam nga zonal xam nga loolu lu jëriñ soo te cette année ci ñoom soo parce que mo tax ñu jël minimum

voilà maa ngi nii euh, euh, fi tok euh, ak nga le président des supporters de l'ASC Colobane voilà Wala ma ñëwoon fii seet si ko nag bëgg moom wax ma naka lay préparer ak ambiance ak naka di ren ci nawetaan yi. waaw salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di leen fay leen wax dal leen jàmm daal waaw Colobane moom comme nu daan ñëwee rek lay waaw dara du ci changer ambiance ak lépp mais dañ ciy jiital tamit discipline yar ak teggin waaw loolu lañ ciy jiital waaw ba def nañ ay réunion yu bëree ci kaw lépp discipline rek xam nga ànd ak yar ànd ak teggin xam ne taan daal ñett la victoire wala defet xam wala machine ñun mais dañu ñaan yàlla suñu borom daal saa su ne waaw muy def lu gën si ñun waaw loolu la ñaan yàlla suñu borom saa su ne ngay denk say supporter yi nga xamné ni yak ñoom a nar a ànd sa équipe ngay wajjal sa phase départementale di wajjal aussi say zonal ñoo xamné ne bi nga xamné ni tirage nañ poule ba euh naka nga nara and ak say supporter ak ñaari compétition yi nga xamné ni mom mom mom mom lañ deugmal waaw surtout départemental bi mom ren mom dañ ko jël au sérieux départemental bi mom faaw ñu si follow wuñ si xam nga te tamit comme li nga wax ci correct supporter yi wa mo discipline bi yar ak teggin bi rek xamoo ñu def ñu naan def def suñu combat xamoo ambiance xamoo dem essat ñaan yalla suñu borom wa suñu borom dal wa mooy ñun dam bëgg nañ tamit départemental bu neexé yalla suñu borom mu ñew Colobane te ñep wa ñu ngi koy ñaan bëgg nañ ko dal ndax musul ñew ndax ren mom dañ ko wa dañ ci waslu akabu bu baaxa baaxa baax a baax xam nga gisee jour yi Colobane caaxaanun daal départemental ak régional bi yëpp bëgg nañ mu ñëw Colobane Colobane ku ko xam ambiance nga ko xamee waaw nit fu ne lay jóge di ko seetaan seen ndax lan ambiance am te ren si lay ëpp sax ren di ngeen gis yeneen yoon musul gis billaay wallaay loolu musul gis di ngeen ko gis ren dañuy innové waaw ndax président supporter bu bees lan am waaw ndax président supporter bu bees bi tamit bëgg na def tamit xama loo xamante ni day kawe jor daal waaw te ñoo ngi siy liggéey bu baax a baax a baax. ok merci beaucoup ngi koy kontaanee bu baax a baax moom ki nga xam ne nii mooy président des supporters bu ASC Colobane donc gars yi comme ni ngeen ko gisee rek xool leen ful bi nii lii lépp Colobane la jógee lii lépp ngeen di gis muy cat ba cat ji Colobane la jógee ñëw indi seen i doom indi seen i frère indi seen i mag ñi seen i rakk ne fi ñu booloo doon benn comme ni ngeen ko waxee rek président des supporters mu ngi nii. ñu gën ñu gën koo xamee ci Pape Sow donc euh, Pape Sow comme ni nga ko waxee rek. gars yi nawetaan foo ak la kaf foo ak ree ñoo bokk ndey bokk baay muy Colobane ASC Castor ASC Jubo ASC Médiour ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay kon yaakaar naa ne dara lu ñaaw waru mën a am kon ñu koy kontaanee bu baax a baax